ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew euh, muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy ñi nekk fii ci saal bi ak ñi nekk ci jàkka ja ak nekk ci palaasu jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di ñaan sun borom tabaraka wa taala bu boole ñu tawfiq xam naa jëkk gi jël kàddu lii tax ma nangu ko ñaari mbir rek lay doon benn bi jombul ni thème bi tëdde moo tax lu aju ci définition yi ñu ma sase kenn mënta tàmbalee ci keneen ba noppi door di définir li ngay li ngay bëgg wax xam naa loolu mooy benn bi beneen bi ci des mooy ñaar ñi ñu ma booleel su fekkoon ay gan lañ dama leen di wax jëkk leen wax ba noppi ndax jaaduwul nu di leen jiitu waaye fii ñoom ñaar kenn du ci gan fii ci seen kër lañ ñëw ginnaaw maa ngi ñoom noo bokk yem ci nag kuñ tàmbalee rek baax la tomb bi ñu war a waxtaane tey muy tomb jihaad tomb la boo xam ne njaxas am na ci waaye njaxas looloot li ko indi responsabilité bi ñaar ñu bari am nañ ci ab yan bu tege ci seen loos waaye ñaar am nañ ci ab cër ñenn ñi mooy boroom xam-xam yi walla lenn ci ñoom bokk leneen li ci des moo di xawma dama koy tudde ndax environnement yi ñuy dund ñoom wala jëmmi société bi ci boppam wala opinion publique bi sax ñoom it am nañ ci aw sas ndax li xew ci àdduna mooy dañoo tiital lu bari ci borom xam-xam ba ñemee ñoo wax ci jihaad boo tuddee baat bi sax ñu ne eh, xanaa day bëgg a woote ci jihaad kon tax na ñooña ragal ko wala lu bari ci ñoom ba ñemeetuñ koo jàngale ñemeetuñ cee xutba ñemeetuñ cee def ay conférence kon li muy tekki mooy kenn jàngatu ko suñ ko jàngul ba nit ñu xam ko lu muy jur mooy ndaw ñi jóg di ko yërëntu ci ay béréb yoo xam ne mëneesu ko faa yëre yër ci internet ba yër ci ay téere yër ci ay journaux yër ci ay nangam déglu kuy wax te kay wax yàlla xam ndax boroom xam-xam wala du boroom xam-xam kon fortaatu ci la xam-xamub jihaad tasaaroo ci jamono ji nuy dund ci ndaw ñi ginnaaw fortaatu la nag te jógewut ci xam-xam kon la muy jur ñëpp xam nañ ko tiitloo nañ boroom xam-xam yi ba ñëmeetuñ cee wax kon nu gis ne jaadu na jàngaat ko bu baax ci école yi ci xutba yi ci conférence yi ba nit ñi xam jihaad moomu mooy lan ndax njuum te bañ cee am ndax kat am nay tomb ci lislaam yoo xam ne juum ca musiba mu mag a mag a mag lay indi bari na yoo xam ne boo ci juumee ci diine ci yow lay yem walla sax mu yem ci sa famille wala yu mel noonu waaye dafa am yoo xam ne boo ci juumee xeet wi yépp euh, safaan ba ci ñoom la jëm tomb bii nag dafa bokk ci tomb yooyu waraqa bii ma tiim muy aljihaadu fi lislaam mafhumuhu anwaauhu axkaamuhu wa radd ala shubuhaati almuxaalifin muy jihaad mooy lan yan xaaj la am atte yi nekk ci jihaad lan la lënt yi ci nekk yan la kaddu yooyu ñu ngi ko jëmale ñii la mooy képp koo xam ne iltabasat alayhi masailul koo xam ne masala yi nekk ci biir jihaad lënt na ci yow kenn nga ci ñi ñuy waxal foofu ñaar ila man asaabahu alxuluw bi sababi alawaamil alxaarijiyati almuxtalifa képp koo xam ne dem na ba teengal ci diine dikkal ko moo xam lu doon sabab sa nag ndax jamono bari na ci ne yi ci nekk yoo xam ne ñooy sababus teengal gi tax ndaw ñi di teengal ci wàllu diine kon ki teengal ci diineem ba jéggi ca dayo ci ñi ñuy waxal ci la bokk ki ci def man istuxilla li gayratihi diiniya ki ñuy waxal kooku mooy koo xam ne dañ koo exploité te fekk ak bëgg diineem tax ñu exploité ko ba dugal ko ci loo xam ne lum xamut la kon waxuñu ci koo xam ne dafa dëng moom nga xam ne tooña ko tax a jóg ab tooñkat boo xam ne ab yàq yàqkat la askanoo lislaam ci ay caaxaan kooku taxul ñuy wax fii waaye ki bëgg diine jóg di ci góorgóorlu di ci jiima kër kër yi ngir bëgg a xam ñu exploité bëgg-bëggam boobu ba dugal ko ci njaaxum kon kooka ci ñi ñuy waxal la bokk di wax ak nag bépp ndaw ak fu mën a nekk rawatina sunuy ndaw ci sunu réew mii mu ne nu nekk muy Sénégal dellu di wax ak képp koo xam ne am nga responsabilité moo xam bopp diine la moo xam bopp nguur nga wala mu aju ci sécurité ku ci nekk ñi ngi wax ak yow rawatina boo nekkee koo xam ne dangay wax di jëf waxin ak jëfin woo xam ne da nga ko teg ci kaw responsabilité yëg ne yow dafa am lu tegu ci sa moo tax ngay wax wala moo tax ngay jëf kon ñooñu ñëpp am nañ ab cër ci waraqa bi nga xam ne ci la ñuy wax nii du ñu sonn lool ci ay définition yu bari dañuy jël benn rek ci ñi nga xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ci wax jihaad mooy lan bu ñu waxee ne eh, al mi ngi jóge ci al juhd juhd mooy effort def def def ab coono ngir àgg ci dara moo tax eh, ibnu taymiya daf ne al jihaad huwa badlul wusai fi xusuli maxbubi alxaqi wa dafci maa yakrahuhu alxaq bépp effort boo xam ne yaa ngi koy def ngir bëgg a amal lu yàlla bëgg ak bëgg sori lu yàlla bañ jàppal ne ci jihaat nga nekk loolu yaatu lool kon kon jarul ñuy sori foofu jihaat nag dafa am ay martaba yu bare bari boo ne jihaad rek dañu defe ne mooy nga gàddu jaasi wala nga gàddu fetal di xeex waaye fekk booba du cosaan sax nag ci jihaad Cheikh Abdurahman Saadi boroom xam-xam bu mag xam ngeen ko ci tafsiru alquran nee na jihaad ñaari xaaj la jihaad bi ci jëkk nee na mooy defar defar jullit bi ci naka nee na fi aqaidihim seeni pas-pas fi axlaaqihim defar seeni jikko wa aadaabihim defar seeni teggiin wa jamici shuunihim addiiniyati wa dunyawiya ak nga defar seen mboolem mbirum adduna ak alaxira wa fi tarbiyatihim alilmiya ak yar leen yarub xam-xam wal amaliya xam-xam boo xam ne dafa ànd ak jëf mu ne wa haada nawu huwa aslu aljihaadi wa qiwaamuhu cosaanul jihaad nag dëgg dëgg dëgg nee na mooy bii mooy bu wér bi mooy bu dëgër bi bi nga xam ne moom ñépp a ci war a nekk defar pas-pas yi defar jikko yi am jom baaxal àdduna baaxal alaxira ku nekk ci loolu jàppal ne boo xëyee ci jihaad nga yandu ba ngoon boobu nee na mooy cosaan bu njëkk bi bi ci des nag nee na jihaad la boo xam ne dañ cay jublu aar lislaam aar jullit yi ci bépp noon boo xam ne daa ñëw bëgg leen a faagaaga nee na boobu mooy beneen bi defe naa boobu mooy boo xam ne buñ ko waxee xel dem ci jaasi wala mu dem ci fetal kooku boo xoolee aw séddaliin la kon ci jihaad am na beneen façon séddaliin boo xam ne dañuy wax ne jihaad ñaari xaaj la bu dee dañ ko xool ci kanamu min xaysu nawu façon bi ñu ne jihaadu talab la ak jihaadu dafa am na jihaad boo xam ne ka jiite jihaad te dana ñëw ci xam kan la buñ duggee ci charte jihaad dëgg-dëgg mooy xool ba gis ne taxawal jihaad jot na mu taxawal ko woo ca ñam cay woo kepp yam ca ñooña beneen ba ca des mooy boo xam ne dañoo songu réew mi mu ne ah jóg leen défendre seenum réew nit ñi jóg di def kooku la ñu tudde dafa bële daal ka jiite ji armée ba sooy ba nga ne ka ko jiite dafa ànd ak sagoom yëg ni jóg jot na kat ci wetam mu tànn ña tànn ànd ak ñoom ñu ànd jóg moo xam fu ñu jëm beneen bi ci des nag du sago ndax da toog ba mu yàgg ñu jékki-jékki dal ci seen kaw ñu ne jóg ku mën a jóg lu waay mën na ko def ñu ànd jógandoo benn yoon kooku moom la ñuy tudde jihaadu te def fa su fekkee majaalam la nag bi jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo ngir jihaad yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis bu wér mu ne jaahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum nee na jihaad dana nekk ci alal ki jël alalam di ko def fi sabilillah kon mu ngi jihaad fi sabilillah jihaad nee na dana nekk ci bakkanum doomu aadama comme ñu ko xamee ci xeex jihaad dana nekk itam ci làmmiñu doomu aadama kon dafay dëppoo ak xeet yi nga xam rek mooy yi jàll jàngaleeg yar ak jubbanteeg defar yooyu yépp lu ci ne dana doon jëf dana nekk wax kooku yépp dana nekk jihaad tomb bi ci tegu mooy raayatul jihaad jihaad luñ ci jublu lan mooy objectif bu jihaad jihaad moyen la moyen la boo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir gindi bindeef yi ngir bindeef yi gindiku ak ngir aar lislaam ak jullit yi ak ñu nekk ci biir réewum jullit yi bokk na ci njuumte yi nga xam ne nit ñi danañ ko di juum mooy yaakaar ne jihaad ci boppam dafa nekk benn objectif boo xam ne fu waay nekk da nga ko war a jëfandikoo ay moyens pour nga jihaad fi sabilillah jihaad ci boppam moyen la waaye nekkul objectif lanu koy wonal moo di ne lislaam jógul rek dal ci kaw nit ñi ne leen tey ngeen dugg ci diine lislaam xadis ba Sahl ibn Saad as-Saaidi bi nga xam ne mi ngi ci Buxaari ak Muslim nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy bëgg a dem Xaybar def ne day bu subaa bu ma xëyee raaya bi ki koy jiite maanaam ki nga xam ne mooy nekk njiitul xeex boobu wala njiitul mbooloo moomu di dem groupe bi ku bëgg yàlla kub yonentam lay doon ku yàlla kub yonentam bëgg lay doon kenn xamagul ku doon waaye saxaaba yi sax li nee nag bis boobu nelawuñ kenn ku nekk ne loolu ku mu war a doon ñi di ca waxtaan ba asamaan seet yonent bi sallallahu xëy ne ana ali ibn abi taalib ñu ne ko moom day dafa waneen dafa wanent bët ya mënta gis sax fee mu nekk mu ne nañ ma ko andil ñu andil ko yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam léemu defal ko ci bët yi tefli ko ci bët yi mu daal di gis wér mel ne dara dalu ko woon mu daal di ko jëlal raaya wi te dem wakkiirlul ci yàlla te jël raaya wi ànd ak mbooloo bi jiite leen li am solo fii la nekk Aliyun ne yaa rasulallah uqaatiluhum xatta yakunu mislana ndax su ma àggee rek damay tàmbali xeex ak ñoom ba kero ñi mel ne nun maanaam damay xeex ak ñoom bañ nangoo dugg ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ala rislik defal ndànk Aliyu defal ndànk soo demee ba àgg ca pénc ma woo leen ñu ñëw nga gaaral leen lislaam nga gaaral leen lislaam won leen ko woo leen ci itam nga wax leen li nga xam ne lépp seeni droit la ak seeni bu fekkee ne dañoo dugg ci diine ji kon kooku mooy daawa lum ca teg fa wallahi la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun min xumuri naam maa ngi waat yàlla ne yàlla gindi ci yow kenn nit moo gën adduna ak li ci biiram comme ni mu ñëwee ci beneen riwaaya bi bii dafa ne ko la gën a te gën a baax ci ay gëléem yoo xam ne arab yi fonk nañ ko loolu moo ci gën kon foofu lu leer am na fi moo di ndax jihaad dafa ñëw pour rey nit ñi ali dafa ne ko ndax su ma àggee rek dama leen di rey li fekk nanguwu ñoo mel ne noonu mu defal ndànk boo àggee won leen lislaam wax leen seeni devoir wax leen seeni droit te xamal ne yow Aliou yàlla di ci yow benn doomu aadama moo gën ci yow àdduna ak li ci biiram kon jullit bi dafa jóg ngir gindi doomu aadama yi waaye jógul ngir rey leen moo tax doo mën a xam ban objectif la doomu aadama di am ci jékki-jékki fekk ay nit ñu toog fi béréb ay innocent góor jigéen ay mag ay jullit ay leneen nga jékki-jékki taal dara ci seen biir ñoom ñëpp ñu faatu ah après ban njariñ moo ci ne ak man xel mooy xalaat xalaat yu mel noonu bay àgg foofu ak man lënt moo mën a nekk ci doom bokk bopp doomu aadama ba mu àgg ci situation bu mel noonu kon ñu xam ne jihaad ci boppam li ko tax a jóg doonut rey doomu aadama yi mukk waaye di leen moo ko tax a jóg bu dara dosut lu dul nag attaqué nag dal ci kaw jullit yi bu boobaa foofa lañuy jële jëlee ngànnaay nag ngir xeex loolu moo tax l'islam jógul ngir forcer nit ñi ci ñu dugg ci diine ji déedéet li ñëw ci ay aaya ak ci yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala day wax yonent bi ne ko rek la war waaye jindee sax yàllaa koy def lasta alayhim bi amut bi musaytir amuloo benn responsabilité ci seen ngir aaya yu bari ak i xadiis yoo xam ne lën cay jële moo di ne l'islam ci pas borom bi nee na walaw shaa rabbuka la aamana man fi l ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu nnaasa xatta yakunu muminin ne bu sooboon yàlla ñi ci kaw suuf yépp ay jullit la ñu doon mu ne ko afa anta ndax yow mii tukrihu naasa da ngaa bëgg a forcer nit ñi xatta yakunu muminin da nga leen a bëgg a forcer pour ñu doon ay jullit loolu mënu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mënut loolu borom bi nee na qul yaa ayuha nnaas qad jaakum alxaqu min rabbikum faman ictadaa faman ihtadaa fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu alayha wa ma ana alaykum bi wakiil nee na waxal yow Muhammad neel yéen nit ñi de xam leen ne dëgg ñëw na maanaam lislaam ñëw na alquran ak sunna dëgg ñëw na jóge ci seen boroom fa man ihtadaa ku gindiku fa innama yahtadi li nafsi boppam la ko defal wa man dalla ku réerit nag ah boppam la réeral moo xam waaye la am solo nee na ko wa ma anta alayhim bi wakiil wa ma ana alayhim bi wakiil maanaam du caagi ni man mii dañ ne faw naa leen gindi duñ ne néewuñ faw naa leen gindi maanaam nekkuma responsable ci seenu gindiku sama responsabilité daal fi mu yem mooy la leen ba ngeen xam borom bi waxaat na ne wa qul ilxaqu min rabbikum fa man shaa fal yumin wax leen ne leen dëgg ñëw na ci seen borom la jóge fa man shaa akum soob fal yumin na gëm wa man shaa akum soob fal yakfur fal yakfur na weddi defe naa de lu liberté bu toll nii su tasaaroo ñu xam ne lislaam dikkul pour forcer kenn ci dara borom bi tabaraka wa taala ki la bind wërsëgal la defal la lépp ba àggal wëlbatiku naan la fa man shaa afal yumin comme soob nga gëm yàlla la wax de waxul gëm sax ay pression ak nangam waaye comme soob gëmal yàlla wa man shaa afal yakfur comme soob weddil yàlla ku ci nekk am na lu lay xaar kon loolu leer na borom bi waxaat wax ju leer nañ ñi laa ikraha fi diin qad tabayyana rushdu min al rëy dëgg daal ak caaxaan buñ ko xasee leeral ba mu leeral loola doy na waaye lislaam forcé wul kenn forcé wul kenn ci diine kon xam nañ ne lislaam musta objectif forcé nit ñi gàddu jaase ne tey ngeen gëm wala ma rey leen loolu mosu ko tax tomb bi ci tegu moo di dawaabitul jihaad tomb bu am solo la mooy jihaad yan condition lay am ba taxaw ñu ne lii jihaad bu lislaam nangu la parce que du caagi ne kat jihaad bu jóg taxaw rek yor jaasi ñu ne loolu jihaadu lislaam la tomb bi ci jëkk mooy bi ma weesu léegi jubluwaay bi objectifu jihaad bi ci boppam day doon boo xam ne bu lislaam nangu ne lii la la ko tax a jóg mu nangu ne lii la te loolu mooy li ma doon wax léegi kon objet bi doon boo xam ne bu bu leer la bu wér la bu lislaam nangu ne loolu nangu na ko wali takkoona kalimatullahi hiya al ulya kaddu yàlla féete kaw kaddu yépp mu leer nañ ku bëgg gëm ku bëgg weddi loolu jihaad boobu tomb boobu moo ci jëkk bi ci des moo di al ilm xam-xam jihaad mënta am te fekk xam-xamu sharia bu xóot nekku fa li ñu tudde al fiqhu fi diin ndax amul benn benn xeetu jaamu yàlla boo xam ne nit ki mën na koo def te fekk xamu ko loolu amut bu ko defee lu mel ni li Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah wax daf ne man abada allah bi gayri ilmin kaana maa yufsidu akthara mimma yuslih ku jaamu yàlla te àndul ak xam-xam nee na li ngay yàq mooy ëpp li ngay defar rahimahullah loolu dëgg ci lépp la lépp xeet bépp loo xam ne nit a nga koy def di jàpp ne da ciy am tuyaaba te jàngu ko ba xam ko ba xóot ca ba mu leer ci moom xam la ci jaadoog la ci jaaduwut ak la ci ay charte ak la su duggee ci biir la muy yàq mooy ëpp la muy defar Cheikh Saalih al dafay wax ne jihaad day bunt bu màgg la loolu moo tax boroom xam-xam yi jagleel ko ay téere ak ay bunti xam-xam yoo xam ne dañ koo gëstu gëstu bu xóot tudd ay atteem jële ko ci alquran jële ko ci sunna mu ne jihaad day boroom xam-xam yi ak boroom gis-gis yi al ilm wal boroom xam yi ak boroom gis-gis yu lañ ko waral a laaj tomb bu am solo la wax mu teg ne al jihaadu amruhu amruhu azim mbiram lu màgg la su fekkee ne dañ ko organiser teg ko ci sart yam war a nekk comme ni ko yàlla tere akub yonentam nee na kooku njariñ kese la mën a doon ci xeet wi yépp mu ne waaye su fekkee ne dafa doon fawda anarchie te koy ña koy def ànduñoo basiira seenub gis soriwut ànduñoo xam-xam nee su boobaa musiba lay doon mu tabbiwaat ci kaw xeet wi tabbi ci kaw jullit yi mu teg ce ne fa kam yuqtalu min almuslimina bi sababi mugaamarati jaahilin aghdaba alkuffaar mu ne ñaata lañuy rey ci jullit yi te fekk sabab sa benn nit ku réer rek moo jóg def njaaxum goo xam ne euh, da koo def jëmale ko ca yéefar ya fanqaddu ala almuslimina taqtilan wa tashridan wa xarban wala xawla wala quwata illa billah nee nañu wëlbatiku dal ci kaw jullit yépp ci rey ak euh, dàq leen ñu génn seen i dëkk mu ne wa yusammuuna hadihi almugaamara biljihad wa hada laysa huwa aljihad mu ne euh, risque boobu wala dof doflu googu wala xaru googu nee na ñu koy tudde jihaad waaye nee na loola day du jihaad ndaxte li annahu lam tatawaffar shurutuhu nee na ndax sarti jihaad dajewu ci walam tataxaqaq arkaanuhu ponki jihaad itam dajewu ci nee loolu moo tax laysa jihaadan innama huwa udwanun laa ya'muru allahu azza wa jalla bihi nee na loolu ak tooñ la ak jalgati boo xam ne sunu borom tabaraka wa taala santaanewu kon gannaaw boo xamee ne objet bi leer na xam leer na am na ñetteelu charte bi mooy as sultaan maanaam njiit loo xam ne mooy ki jiite askan wi maanaam bu doon ci suñ mbir ni mu tëdd tey dañ naan ki jiite réew mi te doon ab jullit kooku mooy organiser jihaad yonente bi sallallahu alayhi wa bi mu fi nekkee moom ci jëmmi woon liggéey moom bi jógee saxaaba yi ñoo wëlbatiku yore ko ñëw ba ci jamono Omar ibn ñu organiser ko ci anam goo xam ne dañoo daal di xam ñan ñooy soldaar yi ñu jël leen xam lan mooy seen seeni salaire xam ñaata fan lañuy am ca àll ba daa door a ko daal teg ko ci anam boo xam ne administration la daal di nekk kon euh, ci jamono Omar ibnul Xataab ci lañ ko daal di gën a wut ci baytul maal ab xaaj maanaam budget boo xam ne spécial la ci armée bi ñu di leen ko jox loolu daf lay won ne jihaad moom kat kon day dugg ci bunt bi ñuy tudde asiyaasa charia maanaam politique bi nga xam ne lislaam moom la indi tër ko jihaad benn tomb la ci biir siyaasa charia nag buñ ko waxee dafa doon bunt boo xam ne dafa gën a mat a jàng lool ndax ñu bari dañuy jaawale li ñuy tudd al fiqhul islaami muy fiq ci jëmmi boppam nga xam ne ay atte yu sax yoo xam ne mënta soppiku mënees caa dolli virgule mënees ko caa wàññi ak cadre bi ñu tudde siyaasa charia nga xam ne mooy politique ul islaam lenn lu ci nekk dañuy xool jamono jëm dëppool ñi tëre ko noona yonente bi alayhi salaatu wasalaam doon na doon na jihaad wala déet waaye ndax amoon na li ñu tudde diiwaanul jund wut benn eh, idaara muy benn direction boo xam ne dafa yor lépp lu jëm ci wàllu armée bi wutal leen ay salaire ñu jël budget teg loolu ci jamono Omar ibn Xattaab la am kooku moo lay war ne kon siyaasu charia la ndax Omar ibn al-Khattab sañu te yokk dara dara ci loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo tëroon ci alfiqul islami asabit maanaam attey lislaam yu yi nga xam ne mëneesu koo yokk mëneesu koo wàññi Omar ibn al keneen mënuñu caa yokk mënuñu caa wàññi waaye buntub siyaasu charia nag jamono yu nekk kooka day xool li gën ci xeet yu mu tëre ko noonu moo tax aaja na ñuy def ndànk lool danañ dem ba suñ jëmmi jamono léeg-léeg am yoo xam ne état yi taxaw ñoo ko tër am nañu ko tëre boo ko xoolee da ngay gis ne imtidaat la maanaam continuité la ci lañ tëroon ci lislaam muy avancé ndànk ndànk di avancé ba mujj agsi foofu ki xamul la day daal di wax ne lii moom bokkut ci lislaam def nañ loo xam ne bokkut ak la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon daal di génne benn atte boo xam ne dana ñëw ci atte yi ñëw ci kanam kon jihaad dafa dugg ci cadre boo xam ne cadre siyaasa charia la imaam muy ki jiite nit ñi te nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci gouvernement bi kooku mooy am organiser jihaad waaye du caagi ni ay kuréel wala ay benn benn doomu aadama ay individu ñoo jékki-jékki rek tëf jihaad daal di jóg na dañuy dañuy xeex fekk loola du doon jihaad bi nga xam ne sharia moom eh, ñeenteelu tomb bi mooy al qudratu wal kifaaya imaam boobu même buy organiser sañu te fekk ay nit ñu néew kattan néew ay ngànnaay mu jël leen ñuy jaamaarloog ñoo xam ne mën nañ leen a faagaagal ci benn bés wala ci ñaari fan loolu alquran ci boppam daf koo tere ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen loxo yi jëmale ko ci alkane wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima borom bi tabaraka wa taala nee na bu leen rey seen bopp yàlla daf leen yërëm moo tax même sultaan bu amoon ak lu mën Euh, xeet wa dañoo néew doole jaaduwut mu di leen màng jëmale leen ci xeex boo xam ne suñ demee dañ koy perte kon ñeenti sarta ngoog yoo xam ne benn mënu cee ñàkk bi ci jëkk mooy objectif bi leer nañ lu tax jihaad bi jub ñaareel ba moo di xam-xamub sharia bu xóot na fa nekk bañ xamee jihaad bi mooy lan ba ca des moo di sultaan na am muy njiit li nga xam ne moo jiite askan wa kooku moo sañ a organiser mais keneen ku dul moom sañu ko nii la lislaam tere beneen bi ci des mooy na fekk xeet wa am kattan goo xam ne mën nañoo jaamaarloog séenum noonu su fekkee dañoo amul noonu eh, am na nag ay lënt maa xamul li ma dese ci waxtu nu mu mhm, am na ay lënt yoo xam ne yu aaje lijjanti la ndax bul jàpp mukk ne euh, ki lënt nekk ci boppam mu jóg fam ngànnaay ne day xeex ak nit ñi bul jàpp mukk ne toujours kooku noonu lislaam la boo xam ne dafa jóg pour tas lislaam mën naa doon koo xam ne ay yéene la yor yoo xam ne jàpp na ne moom lii muy def day liggéeyal lislaam kon kooku nan nga mën a jëflanteeg moom ba jële ko ci loolu mooy dindi lënt mi nekk ci boppam képp kon kooku moo ku feebar ñooyam dañ ko war a yërëm dañ ko war a jàngal dañ ko war a dimbali ba lënt mi nga xam ne moo nekk ci boppam mën a dañ waaye wërta doon koo xam ne dañuy jëflante ak moom yeneen façon jëflante lënt yooyu bi ci jëkk moo di masalatu takfir xam nga li ñuy tudde takfir muy yéefarloo ku nekkoon ci lislaam bam yàgg nga xëy ni kooku nekkatul ab jullit kooku masala bu mag la boo xam ne boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy atte sax maanaam qaadi bu doon sharia dafa taxaw te qaadi moo sañ a wax ne nit ki génn na ci lislaam waaye même boroom xam-xam akub mufti loolu du liggéeyam ñi koy laaj ndax diw jullit la wala déet mu ne du jullit sañu ko sañ naa gis ci moom nag ay firnde yoo xam ne yii doy na waar mu bind attekat ba ne ko kii kat gis nañ ci moom loo xam ne seet ko ba xam ak tubbi la am déet su boobaa kooko ko seet kon masalam takfir doonut moo xam ne mu woyof la ci lislaam waaye dafa dem ba woyof ci ndaw ñi ñu woyofal ko ñi nga xam ne feebaru lënt boobu dafa leen a dugg fi ñuy tàmbalee mooy xool bon bon bon yi ci àdduna bi bon bon yi ci réew mi ñu ne ay boroomi xam-xam a ngi fi di ko seetaan ay autorités ngi fi di ko seetaan ñu ne ginnaaw nag lu bon la te seetaan nañ ko te dañ koo seetaan jéemuñu koo dindi te mën nañ koo dindi kon ñii noonu yàlla rek lañ mën a doon ndax suñ dul woon noonu yàlla danañ def li yàlla wax foofu lay tàmbalee dana ca dem ba àgg ci ne ñooñu génn nañ diine boroom xam-xam yi génn nañ diine ndax gis nañ lu bon nee nañ ca ceel war nañ caa wax waxuñu ca kër yi génn nañ diine suñu xasee dem ba attekat yi muy autorités yi génne loo leen diine danañ yéefarloo jiitu réew ma gouvernement ba armée ba képp ku fa yëngu ku mën a wala leen dimbalanteeg ñoom wala yow fonctionnaire bi rek ci bureau bi di xëy di liggéey ak ñooñu sax danañ àgg ci yéefar loolu yàlla xam ne ay xisas yoo xam ne ci ay nit yoo xam ne gis nañ leen ñu dugg ci loolu ba génn tuubaat di nettali fañ àggoon ci ci yenn conférence yi nga xam ne danañ ko di fekkee da ngay gis loo xam ne lu doy doy waar la am na waa ji ñu nettali yoo xam ne def na ci ci ci màkka lañ nekk ñoom ñaar dañoo takk fiir ñëpp doomu aadama jàpp nañ ni ci kaw suuf ñoom ñaar dong ñoo fi def ci ay jullit nee na ñiy dox ci kaaba gi di tawaaf di tawaaf gis mbooloo ba mu yàgg kenn ki kobos moroom ji waaw nga yaakaar ne ñii ñëpp ab jullit nekku ci mu ne ko yow yaa ngi sikki sàkka ci ñàkk takfirul kaafir maanaam yaa ngi gis ay yéefar te takfiru leen kon yow ci sa bopp ab yéefar nga léegi kon yenn waaja rek daal di fay def ña ca des ñëpp dem nañ xam nga loolu ci doomu aadama feebar la maanaam ki loolu dal dañ ko war a dañ ko war a faj waaye bul jàppate di ci ne njuumte lii am ci jihaad bi ci bari foofu la déparé ndax bul defe ne yow mi toog naan ñii dañoo dox jóg di fekk ay jullit ñi di leen rey bul defe ne da di rey jàpp ne ay jullit lañ dafa déparé ci takfir leen ba pare nee na duñ ay jullit moom ba àtte leen ba pare loolu moo tax mu sañ ñëw ci marché bi wala mu ñëw ci biir jàkka ji sax léeg-léeg taal fa taal fa bombam jullit yi ña ngay tudde jullit yow ñu dee waaye fekk moom tuddewu leen jullit kon masala boobu masala yu mat a jàng la yu mat a delsiwaat la yee ci nit ñi bañ xam ne kooku euh, maanaam base la ci ci li ñu tuddi jihaad tey te du jihaad maanaam takfir moo jiit loolu door a ñëw beneen lënt bi ci tegu mooy ci téere fiq yi boroom xam-xam yi dañuy seddale adduna bi diyaarul islaam ak diyaarul kufr loolu da ngay dem ci téere fiq yi di ko ci fekk moo tax toujours danaa di wax ne ndaw ñi ak jàngalekat yi nañuy xàmmee loo xam ne dafa dugg ci siyaasa charia politique gu moo ko amal tey mu tudd nii ëllëg mën naa soppi ko tudd neneen ëllëg mën naa soppi ko waat tuddaat neneen ci ay jamono adduna bi dañ ko séddale ñaari xaaj xaaj boo xam ne lii mooy kërug jullit yi lële mooy kërug yéefar yi noonu la tudd ci téere fiq yi jarul ñeeblu kërug jullit ak kërug yéefar luñ doon tudde kërug yéefar mooy kër goo xam ne ña fa nekk daal dugg guñ ci biir lislaam donte ay jullite nga ci seen biir di fa dund ñoom en ay minorité yu nekk ci seen biir mën nañoo dem sax ba am ay accords yu dox seen diggante ak jullit yi waaye du tee daaru kufr lañ koy tudde parce que lu ci am mooy lu dul lislaam moo fa not moo tax ñu tudde ko wowutul léegi nag li am ci lu bari ci ñi nga xam ne jihaad dafa jaxasoo ci seen bopp mooy dañoo jaxase li ñuy tuddee daaru kufr ak daaru xarb daaru xarb mooy ñi nga xam ne dañoo nekk jullit yi ci guerre loolu boroom xam-xame fiq yi mosuñu leen a boole ñi nga xam ne dañoo nekk daaru xarb mooy ñoo xam ne déclaré nañ guerre dañuy xeex diggante seen diggante ak jullit yi nekkuñu ci jàmm luñ man mënal jullit yi dañ leen koy def lu leen jullit yi mënal def leen ko kooku mooy daaru xarb waaye daaru kufr du loolu daaru kufr mooy ñii ay jullit waaye ba maana jàmm sax moo dox seen diggante ak julli di jotewuñ dara xeexuñu defuñu dara léegi nag njaxas li am mooy ñu dem ba jaawale yaar yooyu dafa ne képp ku di yéefar ci daaru bu nga nekk maanaam foo fekk yéefar sañ ngaa xeex ak moom sañ ngaa jël alalam sañ nga koo rey mu jeex kon njaxas loolu am ci eh, daaru kufr ak ci indi lëntu jihaad ci la bokk eh, ñetteelu lënt yi te bu am solo la mooy addawlatu alislaamiyatu almuwaxada maanaam lislaam ci menn réew la am na ñoo xam ne ba suñ jonni tey jii seen xalaat mooy réewi jullit yépp menn réew la menn réew la loolu mooy lan mooy ay frontière amut ñi ñu teg naan kay réew sangam kay jiite réew sangam ay tur ay nangam ay nangam loolu amut loolu ay xalaatin la yoo xam ne bokk na ci li muy jur moo di saa boo jekkee ba yëg ne am na réew mu am problème akum réew ci réewi jullit yi nga gëm ne kon kooku am na problème ak sa réew su fekkee réew ma léegi xeex kon da ngaa war a jóg dem xeex lu tax parce réew la frontières yi man xaw ma ko loolu nag masala bu bu bu doy waar la bu mat a jàngat la te teg ko ci xam-xam li may tàmbalee ci gii ma jël ci lënt yooyu moo di ñu xam ne lislaam nangu na ay frontière lislaam na frontière ci diggante jullit yi ak ñi dul jullit yi nangu ne ñii am nañ seenum réew ñii am nañ seenum réew te it nangu na ne ña nekk ci seenum réew te duñ ay jullit ñii mën nañoo nekk ci seenum réew doon ay jullit ba noppi jàmm dox seen diggante loolu lislaam nangu na ko borom bi wa taala nee na walladina aamanu wa lam yuhaajiru ma lakum min walaayatihim yoo xam ne dañoo nekk ci réew moo xam ne du réewum jullit yonent bi sallallahu alayhi yi yéen jullit amuleen kilifteef ci jullit yooyee di dund feneen kon seen kilifteef fu mu nekk foofa maa lakum min walaayatihim min shay xatta yuhaajiru ah suñ jógee jullit yi nag bu boobaa kilifteef gi jullit yi ñoo ko yore yi may wax ni lu am solo la alquran dafa maandu maandu goo xam ne doy na waar mu ne wa in istansarukum fi ddin fa alaykum an nasr musulman boobee nga xam ne ma ngay dund ci ñoo xam ne duñ ay jullit suñ demee ba am fa problème ñu leen di xeex ci diine ñu yónnee ne yéen seen mbokki jullit yi kaay leen dimbali nu nee na fa aleykum an-nasr sañ ngeen leen a dimbali illa ala qawmin baynakum wa baynahum misaaq lu dul dafa fekk di ñooñi ñuy dundal yéen li dox seen diggante am nay accord yoo xam ne bu doon ci suñ jamono ji da ngeen naan ay relation diplomatique dox na seen diggante su boobaa minorité musulmane buy dund foofu mënta tax yow jullit bi ngay jóg fii di dem di xeexi foofa ne sama mbokk jullit dañ faa nekk ci ña nga leen di lor xool googu maandute maandute bu doy waar jullit ba daal ma ngay dund foo xam ne du jullit nee na kilifteefam foofa la nekk kon na jéem a respecté la fa nekk loi ya fa nekk bu mu ko jalgati dañ ko fa andi mu dikk fa di fa dund ci ñeneenu nit na dund diineem li feeg ñi ngi koy may mu dund diineem na ko dund waaye bu mu jalgati dara may ñu ko mu dund diineem ne na gàddaay dem fa julli di nag mu nekk fa bis bu gàddaay dëkk ci julli di nag su boobaa kilif teefu julli di moo fa nekk toog na foofa ña ngi koy lor musiba dikk na fit na am na ca seen diggante mu ne eh seen mbokki julli saa mbokk yi kaay leen dimbali nee lii cosaan mooy dañ ko war a dimbali waaye nag ci kaw fekk kóllëre doxul suñ diggante ak waa réew moom yi nga xam ne du réewum jullit am nay accords yu dox suñ diggante su booba sañu noo dem dimbali ji suñ mbokki jullit yooyu kooku tomb bu am solo beneen bi moo di ne ñu xam ne alamul islamique bii muy dund tey muy monde islamique bi nii mu séddalikoo ay réew ngir sore gim sore loolu lislaam bañu ko boroom xam-xam yi gëstu nañ ko bu yàgg yàgg yàgg al imaam al ci bi muy saraa xadis bi wax ne ida booya li xalifatayni daf ne xam nga xadis boobu day wax ne réew mi daal suñu xasee tànn kenn am keneen ku jóg bëgg koo daaneelaat bëgg dindi nee na kooku koy daaneel rey leen ko bi muy sara xadis boobu la ne lii mooy tegtale ne iqaamatu imamayni ala mani iqaamati imamayni nee na lii mooy tegtale ne mennum réew nga tànn fa ñaari président dañ koy tere mu ne wa dalika yuaddi ila almuxaalafati wa shiqaaqi wa xuduusi alfitan wa zawali niam mu ne ndax kat loolu day indi fitna indi ak tàqaliko indi ay xeex mu ne waaye ida tabaacadat al aqtaaru wa tabayanat kal andalus wa xurasaan jaasa dalik neen su fekkee dañoo dem ba réew yu soree nag mel ne ca penku ak ci sow maanaam andalus ak xurasaan la joxe misaal ci ay jamonoom muy ci maghrib Maroc wala ca Pakistan wala Afghanistan nee su fekkee noonu la réew yi soree nag su boobaa ah man na mën nañ ko séddale imaam mën naa nekk fi imaam nekk fële ibnu taymiya moo gën a leer foofu ndax dafa joxe ay misaal moom bi saxaaba yi daataan jeex lool dafa am moom nee na ali ibn abi talib ak muawiyat ibn abi sufyan ci même jamono ji ñaari imam lañ yoo xam ne ku ci nekk imam ci béréb boo xam ne kii ma nga kóofa kee nekk cham ñu jaayanteeg ñoom ci même jamono bi kenn ku ci yëkk ku ci nekk yor sa gouvernement kenn ku ne xam fa nga tàmbalee ko say frontière ya ci jamono yi saxaaba yi yéexaguñ al imaamu Shawkaani wax ju gudd la ci wax <coughs> ci téere bi ñuy wax as-Saydul Jarraar eh, ba mu waxee waxa waxa ba àggal bëgg a wone ne su fekkee ne réew yi dafa yaatu ba soree ñi bëgg leen tànnal benn njiit <coughs> neenal te njiit boobu lay daw fale sax mënu koo xam nee na loolu day dem ba eh, def loo nit ki lu mu mënut lay mujj doon maanaam day dem ba duñ ko àttanati day mujj di responsabilité yi day jéggi dayoo moom noonu la ko jàngate nee na ku nekk daal dañ ko war a yan lu mu àttan mu ne fa inna al farqa bayna ma kaanat alayhi al wilayatu al islamiyatu fi awwali al islam wa ma hiya alayhi al an awdaxu min shams an nahar wa man ankara hada fa huwa mubahid la yastaxiqu an yuxaataba bilxujjati li annahu la yaaqiluha nee na ku weddi ne lislaam nañ doon dunde bu njëkk doon am réew mu ndaw di yokk di yokk ba àgg fi agsi ci jamonoom moom lay wax de nee na ku koy ku wax ne li nuy dund tey muy ci jamono Shawkaani ak lan du amoon ci njëlbéenu lislaam ku bëgg wax ne réew yooyu wuute wuñ nee na loolu dafa wuute ba nii jant bi leere ci bëccëg bi noonu la loolu leere mu ne ku ko bëgg a weddi nag nee na kooku sax jarul ñi di ko andil preuve ndax boo ko indee du ko mën a comprendre maanaam am xelam xamut kon yaa kon nee na eh, juróomi minute la wax ne insha allah moo si des xam nag dañ ma ko may wala kon mbokki jullit yi gannaaw jéegoy fiq yooyu yaadu nañu génn nag ay tomb yoo xam ne ay ndénkaane lay doon ak i leeral yoo xam ne dañ ci romb romb bu gaaw rek balaa juróom minute yi jeex benn bi moo di jaadu na nun ci jamono yi ñuy dund ñu dëgëral lépp loo xam ne day fexe ba suñ réew mi nekk benn kàddu lépp luy tàqale askan wi jaadu na nu taw ko ci yépp jamono waaye rawatina jamono yi nu nekk ndax jamonoy fitna jamono yu mbooloo la war a doon ndax ñu mën a xeex fitna ñaar wattandiku saafara suy jur jàngoro ci lii ñuy dund tey ndax saafara yi léeg-léeg am ci saafara yoo xam ne li ëpp ci mbooloo mi dañuy am yëg-yëgu ne lii du saafara fitna waaye xeex diine la loolu nag su demee bay juddu xam leen ne saafara ngay bëgg a jur jàngoro moo tax lu mel noonu nañ ko wattu ñetteel ba mooy wattu sànq sa waxtu yow miy saafara fitna wattu la sànk sa waxtu ci ay débat yoo xam ne daanaka la muy saafara lu tuuti la kenn ku nekk dégg na jamono jii nu nekk affaire burqa ak bijaab ak niqaab ak wax yoo xam ne nit ñi ci garam place yi rajo yeeg yépp ci li wax guddi ak bëccëg taaxi bu Sénégal est bu amuloon kenn kuy muur kanamam it dañuy wax ne kon mën nañoo dem toog nag nelaw ndax sécurité am na léegi ah kon loolu du mooy ndey du mooy ndeyi mbir mi buñ ci sànq waxtu buñ ci sànq waxtu ay réew a ngi dund ci digg problème yoo xam ne ñoo gën a metti yi nu nekk noonu sax alhamdulilah nekkuñu ci problème sooy bone ne yéenuy xalaat ay réew yoo xam ne moom xalaatuñ ko waaye dañ caa nekk di ci dund ba noppi nit ñaa nga fa yor seen niqaab te kenn waxu leen dara Nigéria gii mbooloo moom yi ñuy wax nga ne mbooloom yàqkat la di foofa lañ dëkk démb lañu gis ab ministre boo xam ne moo yor wàllu communication mi ngi taxaw ci benn cérémonie soxnaam dend ak moom def niqaabam muur kanamam mu yor sikkimam taxaw ab ministre li ko waral mooy ñooñu xàmmee nañ xam nañ xam nañ ne mbir mi du problème ndax kii muur kanam ak muurul kanam yaa xi kanam ji bu ko muuree mën ñoo xam kii ko mu doon fi ñu ko bëggee xam hmm? nañ yebal ko ne ko yow yaay kan jëndal sa bopp ñu xam ko mu doon su ko génnee bañ xam ko ñu bàyyi ko mu dem nit ñaa ngi foon di muuru lu ëppay fanweeri at ci gannaaw te muskil amul waaw ab saak ki gàddu faagam di dem kook kenn xam na lu ca nekk ki sol benn maxtu boo xam ne maanaam daytaal li lu nekk xaj na ca biir nga soog ko dugg ci mbooloo kenn xam na lu ca nekk kenn xamu ko kon mbir mi dama ne ñu wattoo cinq temps ci mbir yoo xam ne nit ñi dañ koy firee xeex diine fekk amaana ka koy wax sax xeex diine tax koo jóg waaye dafa gis ne xëy na am na ñu ñu yàgg ñu am expérience yu mel noonu dégg na ñuy wax lu mel noonu ñoom itam ñu wax ko waaye ma ne mbir mi tomb bi nekkul foofu ñeenteel ba balaa waxtu wee jeex mooy ñi jublu li may wax ma na ko autorités yi dégg na ko ñëpp dégg njàngum lislaam nañ ci delluwaat jàngal ko nit njàngoom lislaam mu xóot mu sell mooy tax nit ki am xam-xamub lislaam mën a jàng lislaam ju yam yi nga xam ne moom la yonente bi indi woon ak i saxaabaam lu dul loolu nit ñi suñ leen ko jàngalut jamonoy communication lañ nekk lépp xëttaloo na lañuy fortaatu ci internet bi fortaatu fële dajale ay yëf génn yor xalaat yoo xam ne kenn xamut fuñ ko jëlee ci àdduna nañ dundalaat école yi ak daara yu mag yi jàngal nit ñu am ab xam-xam man kat yi ñuy wax ni di ci tuumal ay nit yi gisaguma ku jàng xam-xamul islam ba xóot ca dëgg-dëgg ñi di ko tudd ci yi ñuy wax wax dëgg yàlla buñ dee waxante dëgg noonu ci suñu bopp danañ gis ne loolu gisaguñ ko fi juróomeel ba mooy wàllu presse bi nañ wattandiku ñi ngi jaxase fitna di ko taal te léeg-léeg nga dégg ci wàllu presse ay wax yoo xam ne ak yi ñuy tasaare di ko répété di ko waxaat di ko waxaat di ko waxaat loolu mën naa jur fitna ci aw askan ba ca tegu mooy ñu xam ne tooñaange ak lor ay doom aadama fu mën a jóge baaxut mu jóge ci ab jullit mu jóge ci keneen ku dutub jullit loolu moo tax nun suñ principe bi ñuy doxe mooy waa Occident buñ tooñee nun tooñunu julli gi buñ tooñee nun tooñunu woote wuñ tooñ ndax lu tax parce que dañoo gëm ne sun diine woote wut lool su fekkoon ne principe la bu ñuy gëm kat mu bokk ci diine ñi diine ji ne dem leen jalgati lu metti metti dañuy dem di jalgati nag ndax bu boobaa loolu la santaane waaye danoo jàng diine joo xam ne dafa xaraamal jalgati dafa xaraamal tuur deret ju xaram kon loolu moo tax sunu bañ yu mel ne yii nuy wax bañu ko ci kaw ne am réew da koo bëgg wala da koo bañ moo xam penku la nekk wala sow waaye day suñ principe bi gëm mu doon suñ taxawaay boo xam ne ci la ñuy woote ci la ñuy nekk ci nekk naka jekk beneen bi xam ne buñ demee bay kuréel yi nekk ci suñ biir wala suñ biir moo ko waxee suñ jullit yi daa wax ak fuñ mën a nekk ay boroomi xam-xam di taxaw di dénoncer loolu di ko naqarlu ci buntub jihaad loolu du caagi ni euh, feeñal sa solidarité ci ne taal nañ béréb sàngam wala def nañ fële nangam wala nangam loolu moo tax déedéet li tax dëgg dëgg ci njariñ la muy jariñ moo di ñu xam ne suñ diine buñ askanee ci moom lu ca bokkul jaadu na boroom xam-xam taxu ne lii bokku ci foofu la liggéey ba nekk ku askane lislaam lu dul loolu te bokku ci nan ko doon defe ca bidaaya noonu la ñuy taxaw itam ci buntu jihaad ne la lii ci kon loolu mooy taxawaay bi nga xam ne dañ ko war a taxaw e, noppi nag ci liy xew noppi ci liy xew ci fitna yi ak taal yi ak yàq gi ñàkk a leeral atteb sharia ci loolu ku ko def yaa ngi def njaaxum ndax da nga noppi ci diine lislaam am ay yàqkat yoo xam ne dégguñu lislaam ñu jóg wane ne ñoom ñoo parasante lislaam di wax di jëf nit ñi di leen gis di leen dégg su boobaa lay tasaaroo mooy lañ yor ñoom kon jaadootul ci jamono ji nu nekk boroom xam-xam di di noppi war nañ leen a jàpp ndalal ci média beeg fu nekk ñu mën faa dem wax mu leer ndax nit ñi xam lislaam yi dëgg-dëgg mooy lan ndax kat lu ëpp ci nit ñi xamuñu ko de boroom xam-xam yi diine yi buñ noppee ci tooñaange yi nga xam ne mi ngi dal itam ci kaw jullit yi xam nga lu muy jur tooñaange yu bari mi ngi dal ci kaw jullit ñi ngi tuur deret ci jullit yi dem ci seeni réew ñi ngi leen def njaaxum boroom xam-xam yi waruñoo noppi ci loolu itam lu muy firi ñu ci noppee mooy mbooloo mi yépp rawatina ndaw ñi dañuy wax ne boroom xam-xam yi day kenn mënatu la sukkandiku ci ñoom ñan lañ mën a sukkandiku ci ñoom ñu ne jàmbaar yi nga xam ne ñoom ñooy jóg di taal di def nangam di def nangam parce que ñooñu ñooy jàmbaare lislaam yi tey su boobaa ñooñu seen marchandise day kon wareesu cee noppi moo tax nun dañuy wax ne sun ndaw ñi sun doom yi ñu xam ne jëf jëfi fitna yooyu baaxul bokkul ci lislaam lislaam da ko bañ jaadu ci bépp jullit mu bañ ko donte àdduna bépp ànd nañ bëgg ko sax lislaam bëgg ko nu wëlbati ko waxaat ak réew yi nga xam ne ñooy tooñ jullit yi di faagaagal di tuur seeni deret ñu yëgal leen ne yéen itam li ngeen di def baaxut xel mu mucc nanguwu ko mboolem accord yi nga xam ne adduna fi nañ ko ci mbootaayu xeet yeeg fu mu mën a doon nanguwuñ ko nangu suufu jàmbor tuur deretam faagaagal leen ci lu dul dara lu kenn xamut lu mu doon te it taxawaay boobee ngeen taxaw yéen réew yooyu dialogue bi war a dox diggante civilisation yi muy diggante nit ñi diine yeeg culture yeeg yu mel noonu dialogue bu fi war a am bunt yi day jamono la ñuy dund boo xam ne dafa mel ne buntu dialogue nit ñi dañ ko bëgg a yëkkati nag buntu ngànnaay di xeex kon loolu jaadu na kàddu yu mel noonu mu jóge ci borom xam-xam jëm ci keneen ku dul ndax dialogue kat su buntam ubboo saafara problème yi dana jafe boo xam ne bu réer la nga xeeb ko wala nga jàpp ne nii la mel wala dara nga defe ne mën nga koo xeex ba mu jeex déedéet du jeex saa boo defee ne foofu jeex na rek leneen feeñaat lu bokkut ak loola kenn ku nekk xam na ne fanweeri at yi ñu weesu yépp la ko tàmbalee ci Afghanistan ba fii ñu toll nii ci xeex ay groupe yi tuuti daanaka ci àdduna seen genn wàllu koom-koom ci loolu la dem ñu ngi xeex ba jeexal ñeneen feeñaat ñu xeexaat nii ñeneen feeñaat moo xam lan moo nekk ci gannaaw loolu defe naa waxtu wi jeex na ñuy sant suñu borom tabaraka wa taala ci jéggalu ci xaw gee guddal wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain